fàllilu ndigal lim la doon waxaat léegi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax sëriñ bi fam nekk dafa sori nee na moom léppam sëriñ Touba la nee lu ngeen gis mu koy def ci wattandiku day wone aw yoon loolu képp la ci jublu waaye xam na ni ñëpp xam nañ ko sëriñ bi amul lu muy bëgg wala amul lu muy ragal waaye day wane aw yoon te noonu it la ko ku baax ki daan defee looloo waral su wootee màggal gi dégg na ni mu ko waxee ngir sàmmonte ak àdduna moo digaloon taalibe yi masque yi ñu indaale ko nit ñi it ndigalu Sëñ Tuubaa yi rek la ñuy déglu indi na ko indi nañ ko ba indi indi ko loo xam ni ne ñoom sax jóge ne leen kaw ne amatul fu ñu def masque yi ci ndigalu Cheikh Mouhamadul a nag mu tegaat ko ci seen loxo ngir xam ni yéen bu ko tegee ci seen loxo dana egg ci njaboot gépp dina egg ci jullit yëpp dina egg ci taalibe yëpp dina egg it ci kër yëpp ndax ne ni mu ko bëggee rek noonu ngeen koy defee kon nee mi ngi sant bu baax a baax wasalaamualeykum. wa rahmatullahi wa barakatuhu